kontaan lool tey ñëpp gis nañ lu fi xew son excellence président de la république Macky Sall ñëpp ñëw pour lancer ay travaux am solo bu ëpp solo mooy lan mooy boucle Bakaw waaye également annoncé nañ ne dañu lancer prochainement le pont les travaux du pont de Téemédou am na solo Pronoville nga xam ne Goudomp depuis Goudomp am ba tey wax dëgg yàlla mosul bénéficier un kilomètre de route wala sax un mètre de route

militant la militant la rek dafa ko war a ñëw teertu accompagne te gis ngeen mobilisation bi di am la même chose moo am Sédhiou Sédhiou nag c'est régional moo tax foofu dañ ñëw wax dëgg yàlla gis ne daanaka STD la ñëpp doon gis yaa ngi naan mais kan man maa ko jiite yeneen région yi neen la baax xam ne man maa ngi incha mu wax mu def ko. allo ji wala kër. yëpp partout c'est national ndawul rek département de Goudomp région de Sédhiou déedéet mais ñu ngi fépp te waa Ziguinchor ñu ngi leen di jox rendez-vous leader ñu nekk neen góorgóorlu ñu liggéey bi ñu nangu président de la joxe tous les ba pare ñuy perte yenn ak yenn sport yi c'est pas normal te ñun dinañ taxaw ñu gën di béy suñu waar du ñu yem fii dañ jàppale ko partout où le besoin se fera sentir incha allah bu arrêté. da ngay jàmbaar. son excellence le président de la république moom moo détenir les nominations civiles et militaires moom ku nekk xam na foo yelloo man teg na ma poste SAPCO. maa ngi ciy sant yàlla te maa ngi ciy liggéey maa ngi ciy liggéey mooy ngeen ñaanal ñu ñu am ci résultat moo wax naa leen ne yàlla subhaanahu wa taala mooy fal lu taxaw fii naan Macky falal di ni déedéet Macky kenn mënu ko teg ku nekk loo yelloo dina la ko jox bët bu yàlla nammee ne lu ne lii dina am loolu voilà bu dee day am donc bugguma kenn taxaw di réclamer à ma place ma réclamer wu man lu may def dama koy def par conviction defuma ko pour intérêt maanaam def di di teg Macky Sall dara déedéet Macky man maa ngi koy gërëm dinaa continuer di ko jàppale defuma ko ndax poste bëgg naa mu leer nañ wasalaam